السلام عليكم ورحمة الله مكي نيو لين نيو دي لين زيار لين بالحق نان بروم بي بولي جيغان حديث تايبي دا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا حديث بي عبد الله بن عمر موكو نتلي وحنا ينمتي بي صلى الله عليه وسلم دا حديث بيني ñun aw xeet lañu wo xamni jànguñu te mënuñu bind yoon sallallahu alayhi wasallam mom jàngul te dawul bind ndax xam yeb yàlla moko ko xamal motax tax mu ne duñu calculer wer bi ci vingt 9e jour wala 30e jour lolou liñ ci dégg moy mo ñuy tere ñuy maytu jëfandikoo ñi tuddee xam-xamu ilmu nujum muy ilmul falak ci séntu weer weeru koor wala weeru wari am toog rek di ko calculer xam nga am nañu ci yàlla may ñoo xam ne mën nañu toog calculer wax weer wi ban heure lay génn ban heure lay dugg ak sa aju loolu nag lislaam jàngaluñu pour ñu séntoo noonu weer jëréet waaw lim ñuy jàngal rek mooy ñu séntu ko loolu la ñuy wax séntu leen ko bu ngeen ko gisee ngeen woor ngeen ko gisul ngeen muttali weerul fan bi loolu lay firndeel di ñu tere ñu bañ a jëfandikoo jumtukaay yooyu nga xam ne day dox ci wàllu calcul météo sax léeg-léeg mën a day ngelaw mu xëy du ngelaw ndax loolu day dellu ci wàllu calcul amaa nag lu jëm ci appareil boo xamante ni boo ko xoolee dees na gis weer wi maanaam weer wi dafa génn sew sewaay boo xam ne bët mënu caa teg bët appareil boobu lañ koy gisee boobu loolu charia nangu na boo demee ci bilaadul arab yi nga xamante ne ay mamlaka islamiya la ci ëpp moom lañuy jëfandikoo ndax ñoom dañu am ay commission yoo xamante ni euh, day am maanaam nga xam ne mooy daru xam ne mooy awqaaf ñoom ñoo koy saytu lépp lu jëm ci wàllu lislaam ñooy saytu weer wi tamit moo tax jiyoo du faral di bari foofu bu ko defee loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk yi yant bi daaw jëfandikoo xam-xamu biddéew falak pour gis weer toog fi ma toog di ko calculer waaye mën nañu utiliser appareil woo xam ne weer wi dafay sew lool ñu man ko gis pour mën a joxe information boobu ñu mën ci sukkandiku mën a woor loolu dégg-dégg boobu la ñu ci am waffaqana allahu iyakum ala taatihi bi ridah wa yassara lana bil yusra aqul qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh